mi ngi fii ci Touba Ndiarème Cheikh Basir Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir sëriñ jabal ko mu ñëw bokk ak ñun tiis yëpp euh, di ko masaw ñëpp moom sëriñ bi ragal naa ne sëñ Bas bi ñu tasee Poroxaan barki démb bi ngay wàcc laa la ko wax nga ne ma fexeel ba sëñ bi yëg ko bi nga ñëw sëñ bi moo wax ko ko ginnaaw ba ma ko laa ko nuyuwaat mu ne ma kon naa danaa fi yabal sëriñ Basiru mu ñëw euh, Ndiarème ndax ñëpp sama njaboot lañ.